bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayyidina wa mawlaana muhammadin il amiin wa ala aalihi wa saxaabatihi al ghurri al mayaamiin wa ala xayri xadimihi dil xablil matin wa ala man iqtafa aathaarahum ila yawmi ddin bokk julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gannaaw bi nu santee sun borom subhanahu subhanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa tey jaajëfal al Xadim noo leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd yi nekk di ñaan Serigne Touba Cheikh Mouhamadul su sun borom yokk ko fan ak wér ba matal mboolem ay naalam ak yéeneem di ko ñaanal njabootu sëriñ Tuubaa gépp di ko ñaanal sun boppit nun taalibee sëriñ Tuubaa yépp tey jii di àllarba di fukki fan ak juróom ñeent ci shahr ramadan al mubarak ñu desee seen émission fardu aynin ci seen télévision Lamp Fall ngeen di ko am bis bu nekk ci waxtu wi ci diiru koor gi ci kàddu seen mbokk Serigne Mor Mbacke démb ñu ngi mujjoon ak yéen ci li war ci jullee néew ya ca aju tey nag ñu war a dikk ci yi gën a feddli ko ci junni julli sunna yi julli sunna yi yi ci gën a feddali ko yi ci gën a feddali ko ñeenti julli la bi ci njëkk mooy witar witar bu ñaareel bi mooy ñaari ayit yi muy kori ak tabaski bi topp mooy jullig muurug jant ñeenteel mooy jullig mbaaw jullig baaw naan bu dee julli muur weer moom lu ñu sopp la rek waaye yi yi ñan na moom sun sunna la ñu te mooy yi gën a suddal mooy yi gën a feddliku ci julli sunna yi yëpp nag bi ci gën a feddliku mooy witar witar moom mooy benn rakka bi nga xam ne mboolem sunna yëpp mooy bi ci gën a feddliku moo la julli sunna yi moom witar muy benn rakka bu nga xam benn rakka rek la waxtoom mi nga tàmbalee gannaaw gee ba fenkook fajar waaye bala nga koy jul nag da ngay jiita shafaa ñu tudde ashafau ashafau tollanti lay teg maanaam lu tollanti ko witar nag mooy lu wéet xam nga shafaa ñaari ñaari la la kon dafa wéttili ko witar day benn rakka moo dafa wéet moo witar dana tekk lu wéet dana tekk itam benn ñaar rakka yi nga koy jiitalee da nga ciy sëlmal dori indi wetar moom dong ber ko sëlmal ci safa sopp nañ rakka bu njëkk bi nga jàng ci fatiha ak suratul ala sabbih isma rabbika rakkam ñaareelam fatiha ak xul yaa ayyuhal kaafiruun witar nag ñu jàng ci gannaaw fatiha lexlaas ak fàllaqi ak naasi kon witar kon mboolem julli sunna yépp kon mooy bi ci gën a fedd feddil ko mooy bi ci ëpp solo itam ko xam da ko fàtte nag da ko fàtte def mbaa da doon dal rek far nelaw ba bi muy yeewu lee tey jant bi di fenk tuuti des ca bi xam ne benn rakka doo nga fi xaj wala ñaar rakka doo nga fi xaj kon na julli suba te bàyyi witar su fekkee mat na ñett rakka nag maanaam li li tey jant fekk ñetti rakka xaj na fi wala ñeenti rakka xaj fi kon na julli witar ak suba bàyyi fajar fi na fajar li muy foor foor witare ko gën a witare ko gën a foor kon su fekkee li tey jant fenk ñeent raka ñett raka wala ñett fi xaj kon na na julli witar ak suba mi farata su fekkee juróomi rakka na xañ na fi wala juróom-ñaar maanaam juróom-ñaar rakka xañ na fi nga digg ma jant fekk juróom-ñaar rakka xañ na fi muy sept sept minutes ndax may naa ci minute wala sax du xam naa daal xañ na fi kon na julli safa ak witar ak fajar ak suba gannaaw bi wetar jàllee ba ca topp ci fetliku ci julli sunna yi muy ñaari ayit yi julli ayit mboolem ko ajjuma war sa sunna ko ajjuma war ku ne ba ñu jàngale julli ajjuma leeral nañu ajjuma war neewoon naal mooy ab jullit ajjuma da koo war kon ab jullit julli ayit sunna la ci moom ñaare mooy mu doon góor góor julli ajuma da ko war gannaaw julli ajuma da ko war na kon julli ayit sunna la ci moom te ci mu nekk mu doon as gor te ñëpp ay gor lañu gor su nekk julli ajuma da ko war kon julli ayit sunna la ci moom mu dëkk ci dëkk ba mooy bañ faa doon gan kii doonul gan julli ajuma farat euh, euh, farat la ci moom kon julli sunna julli it sunna la ci moom kon nag nañ limoon ci ne ñoom la ajuma war rek ñoom ñooñu kenn ku nekk julli it sunna la ci moom ku mu waroon dañ ko sopp ci moom xam nga tegoon nañu mu kallaf mu kallaf julli ajuma maanaam gone julli ajuma waru ko moo tax julli it dañ ko sopp rek ci moom jigéen julli ajjuma waru ko moo tax kon julli dañ ko sopp rek ci moom kon ka ajjuma war moom lay sunna ci moom ka ajjuma warul nag dañ ko sopp ci moom loolu mat naa mat mat naa bàyyi xel kon jaam ak jigéen ak tukkikat ñii ñett ku nekk sopp nañ ci moom mu julli it waaye nekkul sunna nag ci moom xiit nag ñaari rakka rek lay doon deesu ko noddal deesu ko li xaamal nodd ak li xaamam julli farata kepp lañ koy defal rakka bu neet day ami kàbbar su dee kàbbar bu njëkk bi man na rakka bu njëkk bi day am juróom-ñaari kàbbar yoo xam ne kàbbar xarma ci nga koy limaale boo ne allahu akbar ci rakka bi mooy kaabar xarmal bi nga teg ci yenn allahu akbar ba muy juróom-ñaar maanaam boo ne allahu akbar muy ñaar juróom-ñaar nga door jàng nag fatiha ak saar wang ca teg bu njëkk bi képp nag ci nga yëkkate say loxo comme nii yi ci des yëpp da ngay bàyyi say loxo mu mu yore nga naan ak allahu akbar ci sa làmmiñ rek ndax allahu akbar yi mooy kaabar bi rakkam ñaareel juróomi kàbbalee doon duñ ci limaale kàbbaru jóg bi mooy bi nga sujjootee bay jóg allahu akbar jooju doo ko ci limaale boo taxee ba noppi nag nga naan allahu akbar ba muy juróomi yoon nga door a jàng fatiha ko saar àggale su mooy jiitu njàng mi kàbbar mooy jiitu njàng mi kon bala ngaa jàng fatiha ko saar dangay njëkk njëkk kàbbar yi ba noppi li fekk rukkoo nga góor rek su fekkee da ko fàtte nag danga danga fàtte kaw ba jàng ba noppi sam xel dem ci mën nga ko dabaatal man nga kàbbar kàbbar yi li fekk rukkoo nga fekkee xas nga rukkoo nag moom doo ko fàttali da nga koy bàyyi sujjootal ko xab la gaaw gaa fekkee da ngay gaa kàbbar ko sujjoot sujjoot baada njàng ma da koy bàmmu njàng bi dañ koy biral sopp lañ ci gën a sopp nag mooy rakkaab julli lañ ci gën a sopp mooy rakkaab ñu koy jàng ci sabbi sama rabbika ala rakkaab ñaari gannaaw sa gannaaw Faatiha wa samsi wa duhaaha lañ ko sopp waaye soo ko bàyyi jàng yeneen saar it du tee du tee dana wér kabar yi da nga koy biral allahu akbar ju nekk ca ca kaw nga koy wax allahu akbar yi muy kabar yi ngay kabar da koy wax ca kaw da nga koy da koy biral dañ ko sopp waxtoom mooy yor yor yor moo mooy bi jant bi fenkee ba yëkkatiku lu mat ñaari meetar nga xam ne fi mu fi fenkee ba fi mu toll mat na ñaari meetar foofu la yor yor tàmbalee baykaru zawal di jot li fekk midi jotagut wala midi trente rek ba te yaa ngi ci yor yor waaye su midi xasee jot nag day jëm jëm ineer day mel ni yor yor nag day daal di weesu waaye mën nañu wax daal waxtu ba ba muy dee demi lépp ci yor yor lañ koy limaale euh, imaam bu sëlmalee it war naa jug taxaw xutba ñaari xutba xutba ñaari xutba xutba yooyu dañ ko caa dañ mën a sunna la waaye day toog ci diggante maanaam su xutba xutbu njëkk baagal day toog tuuti door jugaat indi xutba ñaari diggante tooga toogaayu diggante ñaari xutba yi mi ngi mel toogaayu diggante ñaari jot rek ci julli noonu lay toll kon du yàgg bu ko defee mbooloo mi dañu dañoo war a toog déglu ko maanaam buñ sëlmali mbooloo mi daal di riirandoo dem comme ni mu xewee waaye dañoo war a toog déglu imam ndax imam nit ñi lay waxal waxut ak ay poto waxut ak jaw ji moom nit ñi lay waxal kon nit ñi bu ñu sëmbalee lu mu yàkk yàkk nañ toog dégg nekk ko ba mu xutba ba noppi ñu door ñu door dem ba ñaan sopp nañ yoon wi nga jaarum bi ngay dikk ba ñibbi nga jaar ci beneen yoon bu bokkut ak nga jaar julli ci soo demee nga bàyyi woo yoon jaar ci beneen yoon loolu dañ ko sopp bu dee kori nag soo xëyee na nga mos dara bala nga julli ci ngir mu wér ngir mu firndeel ne tey wóoroo ndax woor bis boobu daa xaram bisu koor yi woor ko daa xaram bisu tabaski ak ñaar ñetti fan yi toog woor ko daa xaram kon na nga mos dara bi nga xëyee mu mu firndeel ne wóoroo tey nga door a julli ji bu dee tabaski nag sopp nga bañ a mos dara moom ba julli ji ba ñëwul la ngay njëkk a mos ca bis ba doon lu bokk ci tabaski ma la nga njëkkee mos bisu na doon lu bokk ci tabaski loolu dañ ko sopp euh, bu dee kon kon noonu la yooyu yëpp dañ ko sopp sopp nañ itam bu dee tabaski julli farata goo sëlmaliti nga kàbbaar ñetti yoon ba kar ñuy àgg ci suba ak bisu ñeenteel ba sooy luñ bisu tabaski ba ci bisu ñeenteel ba bu jullee soo ba nga wax ko ba noppi nga door ko bàyyi julli fàtte gu ñu sama nga ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar soo neexee nga ne allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah bu la ci neex rek naa gis nag jumaay Tuubaa ji ñu di ko fàtt na ñu bari ñu koy fàtt waaye jumaay Tuubaa dama gis saa bu ñu sëmalee imaam ji nga dégg mu wax ca kaw ñett ñetti yoon kabar yi ngir ngir mbooloo mi fàttali ko ko loolu lu am solo dana baax imaam ji bu sëmalee wax ko ca kaw ngir mbooloo mi fàttali ko mën ko def suñ ko defee ci bis nga xam tisbaar tisbaar bi bis lañ ko tàmbali tàkkusaan timis bis ba jàll bis ba ca topp ñu defaat ko ca waxtu yëpp ba ko ñetteel ba ko ba ko ñeenteel bi su ñeenteel bu ñu ci julli soo ba wax lañ koy door hérité ñetteelu yuñ feddle ci julli sunna yi mooy muurug jant muuru jant mooy la war a fi naa jant bi dañ koo jàpp wala bu dee weer ñu ne weer bi dañ ko jàpp jant kenn du ko jàpp weer ko waaye muuru la muuru jant la tudd su boobaa julli lañ ca santaane su amee war na mu kalaf mooy kenn mu góorgóorlu moo xam góorlu wala jigéen euh, mu mu mu xam lu la la la munta ñàkk julli googu nag dafa war ci mu kar mu kalaf di góor wala mu jigéen dafa war ci moom waaye war ga warul warub sunna léegi la maanaam waral nañ ci góor warub sunna walla ci jigéen warub sunna te muy mu kalaf mu teewi julli googu julli muru jant sopp nañu ñu defe ko ci jàkka te itam mbooloo àndandoo ko taroy ko ci imam waxtum mi ngi tàmbalee yoor yoor ba sawaal bu sawal xasee jot nag weesu na comme it it itam bu sawal xasee weesu jot weesu na ñaar rakka lay doon waaye rakk bu nag ñaari rukon lay am julli la gu metti gudd nag julli gu metti te gudd boo allahu akbar kabar njëkk dangay jàng faatiha teg ci saaru bàqara xam nga saaru bàqara daane ko juróomi xisib la tuutee kon man ko juróomi xisib nga door a rukon bu yàggee ni jàng jàng jàng saaru bàqara daal di taxaw jàng saaru ali imran mooy lu gudd la daal di rukon xaat rukon xam ñaareel lu jàng yàgg jàng ali imran dooru siggi nag soo siggi dooru sujjóoti boo siggee nag moom sikki ba du yàgg moom boo siggee rek comme ni ngay eh, def boo rukkoo ci julli simple sikki ci rukkoo na muy na muy toll nga nga sujjoti noonu rek lay toll nga dem sujjoti sujjot bu yàgg lool siggi toog sujjotaat lu yàgg lool jógaat taxaw am nga benn rakka rakkaam ñaari ci taxaw bi njëkk bi nga jàng faatiha ak sóorutu nisaa ba mat nga ko lu yàgg ni jàng surat nisaa sigi taxaw jàng faatiha ak ak suratul maida amoo te ni mu guddee nga xam ne boo jàngee ñeenti saar yi ngay yi nga war a jàng may fukki xisib ak juróom nga xam ne jàng jàng dal un alxuraan daanaka ma safa la ndax lan la yem te lan xam diggam ak fukki isab ak juróom lan xaam ak lan xaam ak lan xaam fukki isab juróom ñaar ñaar ñaari xisab ak nisib la waaw kon fukki isab juróom kon man nga dal fukki xisib ak ñaar ak nisif moom nga cee jàng loolu lu bari la nga door sëlmal noonu la ñuy jullee kon taxawaay yu yàgg lay doon julli gu yàggalee lay doon doonte ñaar raakaale waaye daa gudd su ko defee julli muur jan janna dañ ko yàlla moom des ko jàng ca kaw rukoox ya nag la mu yàgg yàgg da cee sàbbal rek dañ cee sàbbal yàlla jullig bëccëg la it moo war a moo war a ñu ko yàllu bu dee ci muuru weer nag moom dañ koy biral ndax julli guddi la su dee melaw jullig jullig jullig man melo melo jullig muuru weer maanaam su fekkee ne weer wi dañ ko jàpp ci waxi wolof moo ngi naafile yëpp yam moom ñaar ñaar lay doon jërul dajale mbooloo kenn ku nekk mën koo julli sa kër amatul lim da ngay julli par ñaar di sëlmal di julli par ñaar di sëlmal ba kër ba kër muy muri ko rek njàng may saar yu la neex lay doon ñeenteelu julli ci sunna yuñ feddali mooy jullik mbaaw li ko yaram mooy ñàkk taw ñàkk ndox ak waral eh, ak ak maral walla walla mar tool ya maral walla nit ñee mar am ñu lu ñu naan mbaa tool yi maral na tam tëxe taw ñu julli ñaan yàlla ngir mu taw lu ma julli mbaaw wala ngir jur gi naan mbaa doomu aadama yi naan nañ ko defee mooy naafile yëpp a yam muy ñaari rakka dañuy biral njàng mi yor yor lay doon imaam da koy jiite mbooloo mi su imaam sëmale da ci teg ñaari xutba comme it rek su àggalee day daldi benn kaalaam day benn kaala gi te du ko yëkkati du ko ëlbati ci misaal day def nii yëg bu fekkee ne làmbaay la day day day day def jàpp cat lii xëcc ba yëkk jàpp cat daal di xëcc ñoddi ñaari cat bu ñoddee rek làmbaay gi dee daal di safaanu li ma yor kaar gu ma làmbaay yow moo tax kon nekkoon dama koy def ni nga koy defee ngeen gis kon rek laa fi yor taggal kol mënut loolu su ko dee mbool ba nga koy fekk mi ngi taxaw moom mbooloo mépp kenn ku nekk fa nga toog nga def noonu sa làmbaay yow it wëlbati sa làmbaay benn ko te doo ko te doo ko yëkkati ko wëlbati waaye da ngay yor sa loxo jàpp catle ci be yor sa loxo jàpp catle boo xëccee rek bu cal loxo bu nekk jàpp xëccee cal lam jàpp rek làmbaay gi day day daal di bennu noonu lañ ko defee suñ defee nag bu ko dee ñaan borom bi yug dem mag ñi nag fuñ ko masaan defee buñ demee rek mu daal di taw dañu day daal taw moom xëy na boobu mag ñi ragal yàlla gi ñu làmboo woon tayit boobu lu lew dong lañ daa lañ daa dunde dañ daa ñaq seen seen ñaq lañ daa dunde doon ñu ragal yàlla di ko def ci ci ci sellal léegi na da ngay gis dañ ko def du jariñ dara mag suñ ko masaan def rek ku yeex ba ba ku yeex dellu sa boobu da nga tawte kon yooyu ñeent mooy ñeenti yi gën a feddali ci julli sunna yi ñu teg julli fajar julli fajar du sunna ba lañ ko tudde raxiiba mooy luñ xaymam ci diine ji ak nuyoo jàkk nuyoo jàkk moom sunna la ak julli yor yoo julli yor yoo luñ sopp la kon ñett yi ma indi foofu mooy raax yi bala ak sunna ak luñ sopp bu dee julli fajar raax yi bala bu dee e, nuyoo jàkk sunna la bu dee nag julli yor yor luñ sopp la julli fajar luñ xamee la kon ci diine ji aajowoon it yéene yéene jum jagoo waxtoom mooy xaruk fajar moo moo moo julli farata gi ñoo bokk waxtu rek su dee fii man nga ne buñ salaatu rek maanaam buñ jëlee buñ noddee noddi noddu salaatu rek foofu la waxtoom jotee nga xam koy julli daal ci sësale julli yëpp na fajar dong lañ ciy fay donte yëpp ko gën a feddli ko yaa di sunna moom yu raxi ba rek waaye moom dong lañuy fay ci sunna yi moom de ci ci ci ci ci julli du farata euh, moom dong la ñuy fay ci naafile yi dees na ko fay ba sawal li fekk sawal jotu mën ko ko fay waaye bu sawal xasee jot nag mu door weesu sawal mooy digg bëccëg ku dugg ci jàkka ak fajar fekk imam di julli ak subaam day bàyyi fajar ànd ak imaam ci suba gi muy julli farata gi fekk nga imaam mooy julli ko fajar yow waaye fekk nga imaam di julli suba bàyyil fajar kàbbar ànd ak imaam ci julli suba gi soo bàyyee nag ba dellu sa kër bàyyi ba mu naaj ba waxtu jant yëkkati ko ba mu naaj nga door a fay nag julli fajar fekkee da nga agsi jàkk ji duggagoo nag dégg ñuy li xam man ngaa gaaw julli fajar ci bitti door a dugg soo duggee nag kàbbar ànd ak imaam loolu dangaa ragal nag ab rakkaaraw la su fekkee xam nga ne soo fay nekk di julli fajar bal ngaa kii ab rakkaaraw la kon bàyyi yel fajar ga dugg ànd ak imaam julli farata gi def na ma la waxoon boo ñibbee sa kër ba mu naaj nag nga fay fajar ga fajar mooy ñaar rakkay ñu dawal suba mooy julli suba nag mooy ñaar rakkay ñaar rakkay farata yi julli fajar nag soppo nañ nga jàng ca ñaari alam yi muy ñaar raakaay yooyu ñuy ñuy dawal Sëriñ Tuubaa neen ko ciy jàng ñaari alam yi danga nga mucc ci say noonu alam nashrah ak alam tara raakaay bu njëkk bi faati ak alam alam nashrah raakaay ñaari bi faati ak alam tara neen ñaari alam yooyu ku leen di jàng ci julli fajar da nga mucc ci sa say pexey noonu incha allah loolu Sëriñ Tuubaa ko wax sopp nañ itam ku tàbbi ci jàkk bu mu toog lu du mu julli ñaar rakka doora toog ñaar rakka yooyu tahiyatul masjid lañ ko tudde mooy nuyoob jàkka nuyoob jàkk mooy da nuyu jàkk ji doo toog jàkka nag julli lañ koy nuyoo ci sàttum nag muy waxtu naafila dagan am na naafila yoo xam am na waxtu yoo xam ne desu ci naafila julli suba bu ñu ko xasee sëlmal la fa dale ba jant bi fenk ba yëkkati ko foofu dañoo tari ko fi la kon soo duggee jàkk ci jamono yooyu kon doo doo doo doo def tahiyatul masjid mooy doo doo julli suñu xasee sëmbal takkusaan la fa day la ba keru ba keru ñu sëmbal timis dañoo tari ko fi la kon ba tey boo demee jàkk gannaaw gannaaw gannaaw gannaaw gannaaw boo fa duggee gannaaw takkusaan kon ba tey doo doo def tahi tahiyatul lu may lu man da ngaa julli ko takkusaan yow su fekk soo julli ko takkusaan yow kon du sa gannaaw takkusaan yow kon sopp nañ boo duggee jàkkoon bala ngaa toog nga julli ñaar rakka yooyu door a du faat ci toog nag su fekkee da nga ko fàtte toog ba saabu ci sa xel demee mën nga ñoo ko def ko kon toog gi fa taxul mu faat la ci sart nag kon muy ni ma ko waxee muy waxtu nafil nafila dagan sooy waxtu nafila nag kon da ngay bàyyi dangay ngay ñëw rek toog nuyoo jàkka ci laab lañ koy def kon faaw nga laab laab goo mën a jullee xam nga bokk na ci liñ li mën ci sàtt yi tax julli wér mooy laab ma xam ne julli sunna ma xam julli farata la tamay nga nga yor am jàpp julli yor yor luñ sopp la ngeen jaa nag mooy juróom-ñetti rakka mooy la ci gën a bari mooy li du ko ëpp mukk ñaar rakka moo ci gën a néew juróom-ñetti rakka moo moo ci gën a bari waaye juróom-ñetti rakka dees ko ci romb julli ko nag am na solo lool moom yor yor ndax wax ne ni ku ko fonk di ko julli bis penc day day day ñëw ci jëmm ndax suñ borom diw mi di daf ma fonkoon lool ci àdduna kon fonkal ma ko kon tàbbalal ma ko àjjana suñ borom tàbbal àjjana ku ko daw julli mooy suñ borom diw mooy daf maa sànkoon ci àdduna kon na sànk ko fii bu sobee suñ borom mu sànk la kon nag mat nay def ku ko man lu ma defal mooy julli yor yor ñu teg yeneen yi ñu sopp ci julli naafila yi mooy jullik sàbbaal ak naafi lay koor sopp nañ ku julli ñeenti rakka lu jiitu tisbaar maanaam bala nga julli tisbaar na nga dawal ñeenti rakka teg ce ñeenti tisbaar soo noppee nga teg ca ñeenti rakkaa yooyu la bu takkusaanee bala ngaa julli nga dawal ñeenti rakkaa teg ca ñeenti takkusaan gën a takkusaan des ci nafila soo sëlmalee timis nga nafila ñaari rakkaa wala ñeenti rakkaa wala juróom benn rakkaa Sëñ Tuubaa neen ku def juróom benn rakka gën dañ ko bindal jaamu yàlla ak fukki at ak ñaar soo jullee gee ba noppi nga naafila fukki rakka ak ñaar ak witar su dee nag ñeenti rakka yi jiitu yi jiitu tisbaar Sëñ Tuubaa jàngale na liñ ca war a jàng raka bi ñu ko jàngal fatiha ak ayatul kursi yi ñaar yu nga jàng ca fatiha ak amana rasulu ba ca ba ca ba ca saar wax alal xawmil ñaar raka nga sëlmal jugaat ñetteelu raka bi nga jàng ca fatiha ak aayub shahidallahu annahu ba ca alxakimu jugaat rakka ñeenteel ba nga jàng ca faatiha xul yaa ahli kitaab taala taala wilaa kalimi sawa ba ca muslimoon ja nga sëlmu muy ñeent rakka tisbaar su tisbaar ba àggal na ñeent rakka ca tofal bu njëkk ba nga jàng faatiha ak saarixu ilaa maxfiratin min rabbikum ba ca al alamin ba ca minal ja bokk minal muhsinin eh, rakkam ñaar bi nga jàng ca faati ak yastabsiruna mi ne mi laa fadalin ba azimun ja muy ñaari rakka nga jugaat ñetteelu rakka nga jàng ca faatiha ak Eh, a rabbakum laa li si xala samawati wala fi sita yaam ba ca minal musinina ja bele saar yoo ba ci li mu taqina jale bi minal musinina ja jóg ci rakkam ñeenteel bi jàng ca fatiha ak waskur rabbak fi nafsika tadarruan wa xiifatan ba ca minal xaafiliina ja muy ñeent yi ngay tofal tisbaar bu dee takkusaan ñeent yi ngay jiital raka bu njëkk jàng jàng faatiha ak xuluduhullah aw duhaman ayyam mata don ba ca saar wa muy wa kabiru takbira raka ñaar nga jàng ca faatiha ak ak ak ak ba ca saar wa rabbul arshil azim mu ñaar raka ñetteel ba nga jàng faatiha ak suratul kafirun ñaar nga jàng faatiha ak suratul ixlaas mi ñeent yi nga tofal gannaaw gannaaw takkusaan bu dee yi nga jàng nag gannaaw timis raakaam njëkk bi faatiha ak ayatul kursi yi raaka ñaar faatiha ak ak ak lixlaas lu am ngëneel la nag lu am solo la Sëñ Tuubaa moo ko jàngale noonu comme ça suñ dellusee ne incha allah indi leeral yi ci topp kon foofu la ñu taxaw tey indi leen seen ñaanuk bis bi ñaanu bis bi tey ñu ngi ko jëlee ci ñaani yonente bi salaa salaam solo eh, Tirmisi moo ko moo ko solo ak Ahmad ak Hakim mi allahumma yaa muqallibal quluubi thabbit qalbi ala diinik ma baamu ko allahumma yaa muqallibal quluubi qal thabbit qalbi ala diinik allahumma yaa muqallibal quluubi thabbit qalbi ala diinik yow sun boroom yow mi wëlbati wëlbati xol yi yàlla na saxal sama xol ci sa diine xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawxakum fa huwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaykum rawahu hurayrata muttafaqun alayhi yonent sallallahu dee leen xool ku leen féete suuf te bu leen di xool ku leen féete kaw ba mu di leen yóbbee xeeb xéewalug yàlla ci yéen xam nga booy xool ku la tane rek waxtu ne da ngay xeeb sa ba da ngay xeeb sib cër da ngay jàpp ne yàlla dalaa fàtte te fekk su ma defal yoo xam ne mënoo ko fay mën nga tax nga xeeb cërub yàlla mooy xéewal gu mu la xéewalal waaye soo dee xool ku la féete suuf nag koo tane yow da nga sant yàlla ndax danga xam ne am nga loo xam ne ke mu yàlla defalu ko ko xool ku la féete kaw day tax day mën a yóbbu nit ki ba ci wedd yàlla kon saa su nekk nit ki nay xool ku ko kum tane waaye bu muy xool ku ko tane dana tax mu sante yàlla dana tax itam du xeeb cëru yàlla ci moom euh, ñu leen di daj incha allah suba ci waxtu yi seen télévision Lamp euh, euh, di ñaan li gën ci nun yàlla na ko sunu doon defal dëppale ko li nu gënal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa